moo fas yéene ñëw euh, waxtaanee li nga xam ne moom mooy euh, campagne bi nga xam ne tey lay ibbi à partir de minuit ci biir Sénégal ak bi ko war ñu seeti Omar Rew. Amar Réew comme niñ koy defee rek saa su ne Amar ñu ngi lay bu baax a baax di la ziar di nuyu képp ku ñuy seetaan kilifa diine kilifa àdda ahlu beyti rasulullah Mamadou Makhtar la jiite ko ca Cambérène Amar naka nga def e mbadda jam tan mawɗum mi seeɗa seeɗa mi juurima mi weltama yo Allah suren ay waay sam pareŋ mm-hmm. li nga sañse rafet na nag merci jërëjëf xanaa kii ko ñëwal hmm? baax yaay couture hmm? baax yaay ay man sama olof tey du bëri daal ah, ok Yaay Fall ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar ci àjjuma ji di la sante bi rafet na macha allah. maa ngi lay delloo ziar bu baax soxna Ndeye Faye gis naa sa boss merci beaucoup di waxati rek comme d'habitude Lamine Ndaw moo jaarate fii si ñaw bi. maa ngi nuyu Sénégal li ko wër àdduna wërngal këpp di nuyu waa diaspora ak ñëpp. di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ñaanal kenn lu jàmm. di nuyu sama président. monsieur le président Macky Sall ak madame la première dame di wax derrière chaque grand homme rek yaa une grande dame. <laughs> waaw léegi képp rek kii mu àggale koo xamante ngi bëggee yaay faal ah. fépp fépp fépp rek fu yaay faalu Macky Sall nekk. Ah, fu fan su yaay faalu Macky Sall nekk maa ngi lay fekk fa nga toog nuyu leen jàpp sama loxo bi di ñaanal ñëpp kenn lu jàmm di wax ñëpp tamit juma mubarak. amiin juma mubarak kon nag am na solo rek di kontaan ci yow saa su Omar. waaw Ndeye na nga def maa ngay rey. <laughs> ndey laaj ma dama yàkkam a xam ba ci tontu la tey. ok bi tey lay tijji si ah. minuit. ok ana ban jàngat ka ci am. sant yàlla alhamdulilah. Mhm. nañ ci dugg jàmm génn ci jàmm. Mhm. xale yi nag nañu toog seen kër. Mhm. xale yi amul carte amul carte d'identité nga xam ne ñoo ci topp di mbumbaay nañu toog seen kër. te ku leen sànni loo xeer bañ leen. politiciens yi nañ ko def dans la de l'art un point intérêt falaa yem du ma ci wax leneen. falaa mhm. yem tey wax nga waxu nit nag. Mhm. waxu dëgg-dëgg nga wax euh, Yaay Fall euh, ana ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi ma ci am rek mooy dañ ko commencé si bisimilahi rahmaani rahim rek eggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin amin ñu def ko ci jàmm. ak dal ak diplomatie maari te xamante ne mhm. ndam li mhm. Sénégal la jëm dëgg la Sénégal lay des dëgg la ku ko mënta jëlit doomu réew mi lay euh, nga doon dëgg la xam nga képp koo xamante ne rek euh, yaa ngi dem pour xeex yi mhm. mën naa ne xare la sa sa réew ngay xeexal sa réew lay desaat kon nañu ñaan jàmm xale yi aussi comme lu ñu wax rek na ñëpp def jàmm amul non violence. dëgg la amul xeex. amul sànni. amul yàqalaate. dëgg la comprendre nga kon yàlla na jàmm yàgg. yàlla nañu ko commencé jàmm eggale ko si jàmm bañ ne élection yi jàll na si jàmm. amul xeex amul xuloo amul taal dëkk bi. waaw loolu moom mu nekk rek conseil bu am solo Omar. ndax euh, li mu wax vraiment yaakaar naa ne nag lu am solo ndax euh, xale. Euh, xale yi lañuy wax rek nañu toll si jàng nañu jàng bu baax góorgóorlu bu ñu nangu kenn ku leen sànniloo xeer. wala seetloo daal. parce que c'est pas normal. Ah, da koo mat. dëgg la egg mhm. nit ñi nga xamante ne rek politiciens yi euh, chaque fois dañuy utiliser suñuy doom ah, di leen yóbbu ci ay xeex ay sànni xeer mhm. bu bu daaw jotee ñoom ñu dem toog seen kër jël seeni i doom mhm. rawale bitim réew ñuy jàng di di di nekk ay kilifa ëllëg euh, suñuy doom nag ñu nekk def leen euh, la nga xamante ne daal naka sulu noo wala ñu tëj leen si prison yi kon bu ñu ko nangu nañuy am yar ak teggin ndeysaan waaw kay <laughs> de demal soxla demal soxla. atia euh, ñu gisee yaa ngi kii moom amul dara lu ma koy wax tey. ndey. Uh-huh. ndey. <laughs> <laughs> di. kii ñaw bii nu mu tudd. bii robe évasée. Mm, évasée. tey ab Ablaye Niass démb xam nga <laughs> comme noir bi pétrole nga ma waxoon ak unique bi mm-hmm. mu ne ma kon tey bleu bi la may génne ab Ablaye Niass mer tey bu baax ba cinéma inte 3 xam ni ñëw rek lay def ah, sant daal ko ba gërëm ko mm. comme àjjuma la nii léegi ma jël kol ah, après mu muuru daal ah, xam nga pour gën a sellal àjjuma ji man kay lii <laughs> lii laa xam lii na la seen bu jub ma ko doon takkal tis bi laa xàmme ah tis xamee <laughs> bi nga passé dama ko pàcc ah, vax la ko xam waa kay. xam naa ne vax la ak ah, bi mooy bële yi. waaw waaw ndey ñëwal. ndey tiisi bii. Hmm. foo ko xam naa doole baaxul. ndey tiisi bii bu doon may yow tey. Hmm. su ma génnee rek damay jël pétrole taal ko. taal lu tax lii rafet ba bëgg de Ablaye Niass. ma ko ndey amoo looy parce <laughs> lu dul tiisi bii nga xam ne. Ah. walay azim ñu bëri dañ koy def calpe. calpe lan. calpe apprenti yii moom la ñuy def calpe wax ngeen dëgg. deuxièmement damay wax sama wa aqulay taala dem naa restaurant baax yaay ñu ma lekk ba pare ñu jox ma ko torson. torson. ndey bi ma ko gisee sama xel ci cere lay dem. cere la cere parce que restaurant boobu boo lekkee cere bii nañu lay jox torson. torson nan ngay mën a passer. nii lu tax nga passé ko vert jaune rouge noir bi. ana bële bi damay waajal kii bi comme yaw laa jàppale. ci kii bi fan la bi nekk ba nga passé ko nii. bula baa ngi ana ah yaa ngi koy jeex gis. <laughs> benn bu bula boobu nga jël. du benn bu bula du benn bu bula des na ana mu sax. Hmm. waa kon di évasé mi ngi ne da nga évasé nii. doo xam donc évasé gisoo mu defal ma ko évasé. ñu dellu si waat deuxième partie Omar Rew di nuyu bu baax a baax waa pharmacie la docteur Ndione loo ah, sa fan fans boobu jiite ko. docteur Ajilaay Ndione Lo sama xarit la. waaw da bëgg lool docteur Ndione Lo kooku sama waay la. dëgg la. dama ñëwoon foofu ma am benn garab bu may jënd mu manqué. waaw 200 mu ne ma may naa la ko. mu may la 200 yi. waaw waaw gaaw na ci nag. suma xarit la daal yàlla ko yàlla defal jàmm. amin amin amin ñu koy ñaanal bu baax a baax ah, docteur Ndione Lo ah, di kontaan ci moom ak jilaay Euh, euh. El Hadj ñëwaat rek kon euh, si deuxième partie bi. ñu gis ne campagne bi tey jii si minuit la war a tijji ñu bëri nag ñu ngi rek commencé nañ am na ñam te ne commencé nañ seen campagne bi yàgg laay wax mais est-ce que askan wi waruñu yeewu ndax politiciens yi mu may ni bi ñu toogee 1960 ba léegi laa wax lay wax même chose la politiciens yëpp di wax moom la ñuy def est-ce que jotul nag askan wi ñuy yeewu xool bu baax ñi ñuy tabb ana ñan lañu. loolu mooy yoon de parce que. ñu changé eh, jigéen ñi dugg ci. waaw ñu bees daal kale yi daal nañu. xale yu ndaw dem seen yoon. dëgg la parce que kale mooy yor ndénkaane bi jëm ëllëg kale nga koy dénk. loolu daal maa ngi koy rafetlu na kale yi génn daal. ñu bàyyi daal ñu bàyyi leen ñu doxal daal. dëgg la parce que am nañu président bu juddu après indépendance. Mhm. kon ay maire yu juddu après indépendance dañu war a am. Sénégal jëm kanam daal. Mhm. Eh, li koy jëm kanamal parce que ñii nga xam ne dañu tuuti. Mhm. ñi pataa yi dañu war a am xel parce que bu fekkee da nga pataa da nga war a am na ku tuuti ku noo xam ne wa dëgg yàlla bëgg na mel kon yow mais lu nit ba lu fukk war a lekk benn nit lekk ko wax dëgg yàlla kon ñu ràgg ñi duñu lekk te yenn yi nag xel a koy mottali lekk ko ba yey kayit yi naan zi yi sóoraale woo ëllëg kaale yi ngi yi war a ñëw pour mën a am njogonaal yow nag ndey yal na la yàlla defal jàmm. amiin amiin da nga fi def loo xam ne kenn defu ko anniversaire boo xam ne nit ñi lekk nañ ba suur ba ñam yi dellu. ke ke eh, eh, am na koo xam ne daal wan <laughs> rek. yal na la yàlla soppi yal na la yàlla soppi. yeefal li mu jëkk wax laay wax ndax bu mujj bi moom xam naa xam lu mu wax rek moom il faut mu raxsalu ca bokkul euh, mu mel ni nag euh, campagne bi door na. am na ñu door bu yàgg mais jigéen ñi dañ leen war a may seen chance ak xale yu ndaw yi nga xamante ne dañuy soog dugg ci langue politique bi am na ñi nga xamante ne ñooy dimbali seen seen seen seen waa gox ñooy dimbali askan wi ñu ngi jënd ordonnance ñu ngi defar tali ñu ngi ci marché ñu ngi jàppale seen yaay ñu ngi jàppale ñëpp daal rawatina jigéen ñi ah, euh, groupement de femmes yi euh, euh, ban jàngat nga ci am loo ci wax waaw jàngat bi ma ci am moom bari na jàngat bi ma ci am mooy nañu may ñëpp seen chance rek am nañu droit may ku nekk sa chance lu yàlla ku nekk chance am parce que tamit réew xale ko yor. dëgg la comme ni président bi doonee xale rek président xale maire tamit xale. waaw jour le 23 décembre incha allah ku nekk sañ nga dem ka sa leader ka nga xam ne moo la doy. nga voteel ko. décembre. <laughs> ki ga war a gañe moom bind nañ ko ba pare. bu soobee yàlla le 23. janvier janvier incha allah rabbi mm-hmm. ah. ah sama leader ba nag Abdoulaye Diouf Sarr daal di dégg wiiw yow eh sa foo basé ci ñaar <laughs> eh. muy décembre muy muy muy maire de Dakar ak maire Yoff xam nga yow lan laa bëgg sa bi beneen nga xaw ma lan hmm. pizza ay ñaari pizza affaire yooyu euh, man du ñi nga xam dañoo dese daal parce que yow hmm. mentalement yow wéroo yow sa foo bi ñaar gëj waaw foo mbase bi moo ma jëkk foo mbase bi yàlla dogal na ni mètre douze mille francs bi dafa bëri fii jàddi nii bii jàddi nii looy borodi nii. xanaa dañ ko jënd kilo. lii galoo la du borode. galoo la. galoo la ak jour. ka bon. yaa ngi dégg. <laughs> waaw galoo bu bon. <laughs> ndey bu rëy ndey. man dama de man kay sama bopp turu soo bi mu wax laay. kii ni mu rafet. wuy ma foo malee bi ngay tudd. <laughs> xamal na ni métti 12000 francs lay jar. ndey ni ma ko waxee woon sànq rek. kon foo yi bu ñu meloon nii. ni ma ko waxee woon sànq bi ñu nekkee. kan kan kan la ko waxoon <laughs> defal nag kan lim la ko kii xoolal yoonam bi. kan moo xoolal defal xoolal yow nan nga mën a ñawee lii. rafet. nga bàyyi côté bii. Mm. fii nga xumbal ko ba mu xumb. kenn xamul ban yoon ngay jël lu bon lii nga ñaw tey. Lamine Ndaw rey na la. <laughs> rey na la ba nga tee. waaw muy ma waa baax bëgg naa. man maa choisir modèle bëgg naa rafet. bëgg na maa choisir xumbal fi ba xumb. wéetal eh, fi ba wéet ah, bàyyi ma ah, poq yi xoolal poq yi. Eh, eh. modèle bi nii la mel. yow ma déedéet. poq yi la defal nii. yow bàyyi sama loxo. modèle baa ngi ni. lii nii mel na. lii robe grand boubou la bàyyi sama yére. robe grand boubou. tonton Pierre looy de. yow suñu bon lii nga sol. Ah, yow dañ leen di nax rek. Mm. lii orange la couleur bi. Mm. àndul ak lii. ànd na rafet ba bëgg a dee. ndey avancé kaay taxaw. dégradé la <laughs> yow kaay moo tax dégradé nga sax. man ba nga ma taggee sànq man ba nga ma taggee sànq laa waroon tiit sama bopp. waaw xamoon naa ni émission kii bi jeex danga ma yàq ma si ba. ndey nag yow fu mu yéene daal man gis ma bàyyi service bi nga passé nii. suñu chef de quartier koñ bàyyi njin bay dem chaque jour da lay seetaan dem ma euh. romb ko mu ne maan euh, li nga sol ak li mu wax nii ma ne ko ama réew dëggantaan euh, papa dafa am dépression wéru carrément wax naa ko papa njin bay waaw wax naa ko wéru kan la faral man war a yow non dama ne ko yow wéru mu ne ko ah kon xamul woon ni da nga dese daal wax naa ko da nga kii da nga am tuuti lu manqué man bi may solo sànq Malick Ndoye dafa maa xool ba seppal ne ma yii tey moom tey moom Omar yow bu la waxee dara sa jëkkër waaw mu ne ma tey boo amal réew bu la waxee dara lu bon nii nga yéen tey boo waxee dara maanaam maanaam yow ba ngay génn rek fekk ku lay xaar ci buntu bi xam lu ma neex booy ma wut ay nervi yoo àndal de Ndeye Faye mm. dafa baax moom lu ñu wax Ndeye rek danaan dëgg la yow sa jëkkër dafa compliqué <laughs> luñ la xas mu taxaw di mer waaw di guur pour lan ngay xas jabaram pour lan ngay xas jabaram ne ko sàcc bi duggoon kër gi mm. di sàcc nga ne ko jógal mu ne nelawal ba suba na li jënti ko <laughs> jëkkër bii loolu kañ la yaa ba yaa ko wax fii de yaa weer sa jëkkër de sàcc dugg si kër nga yee ko. mu la wax la war ba suba. nga wax ndey daal mu masa sal nag. ndey daal yow lii. effacé sama tailleur bi ah, kii Ablaye Niass déedéet du voile soie la ak vax. kon de soie bi nga choisir baaxul soie bu bon nga jël waaye yéen ngeen nar a yéen yéen wule seen yaram yi lu baax barki rasuul yaay te yéen yii ngeen ñawal dañu mën de mais seen yaram yi ñoo nanguwul lu baax. non lu bon rek sol. mën naa laaj benn question. benn question. <laughs> Omar yow la moo tax nga ñàkk teggin. tontu ma entre franchise. Omar yow la moo tax nga ñàkk bi ñu laaj ba pare. yow nga ñàkk teggin. maître tey bu mag bi Ablaye Niass. waaye dégg bu Omar yow réew nga Omar ñàkk nga kersa Omar yow xamoo sa bopp Omar xamoo temps xamoo tigirin temps Omar yow déggoo daaj Omar yow lan waa appel bi Cambérène yéen laay waxal appel bi kii bu mu génn di jaay bu kii bu bu yéen waa appel bi décoré leen appelaay dafay génn bu mu génn de waa hmm. Cambérène de kii yàq na xale yëpp ci ñaw yu bon ñaw yi benn baaxut ay satin Ablaye Niass sama métti tey. rey na la ba mu dee. maa ngi dégg sa tee sa tee. sa tee du sa tee du sa tee la sol. Eh, eh, du sa tee soit la. du sa tee la lambal soit gerte lambal. lambal soit gerte. gisoo li may ñàkkee. gerte la lambal. lambal lambal sa tee la. lambal li gerte la soit gerte la waaye yow. lii sa tee la lii billaay mbasee lii sa tee la. yéen du bon rek ngeen di sol. lii yéen bu ñu ne seen yéen bàyyi ñaan gi nga nekkee. teg ci masal couleur affaire yow yaa ñaan yow yaa soxor xamoo àddina da nga yaakaar ni sa métal yéen ku ñu sol la ñëpp di sol. saka mbase ma ne la dimbali ñu saka mbase saka yaa yàgg saka mbase yaa yàgg yow sengoor gi ngay xasee nii yow bi sengoor yow bi sengoor boo demee Touba boo demee Touba bu demee ci bunt bi jigéen jàmbaar yi moom lañ lay jox pour nga fompu bi sakamba zera bi sente sente eh, eh, sente eh, bala lel na sax ñu sate ay sate mo lu ñu ba ah, ya fa ya sate yo tamit